yaakaar naa ne daal euh, Tabaski FM musuma gis ni woote xew ñu ñëw nga taaj laax ñuy wax nga taaji palaat teg cey ginaar ñu ni dee tawaay nga yónnee gars yi di bii nag <laughs> be monsieur misi la misi wi de cey saa waaji cey gaynde Fuuta cey gaynde Fuuta cey jàmbaari Fuuta ji cey doomu Maxtaar Saw yow nee naa la ñaari wàll yi la wër yëpp fuñ la ci xool koo tàllal ñaan yàlla nang kuy sa way jur imaam Maxtaar Saw ca caareen diggante liw pare dañ taali ogo caareen seeddoo ñëpp a xam sa way wa kuñ tàllal loxo ñu ñaanal la way sa way jur wu sell wa fii ci Medina Baay doo gan doo Fuuta doo caareen doo gën ci réew mi ñaan des koy donnu ñaan des koy man ñaan des koy wóolu gars yi daa woote tabaski de bisu cant la <laughs> kii tabaski la woote nañ doxal ba si waa day tudd de nee na day tudd <laughs> Sénégal nag gars yi ñi war a jàngi bëri nañ <laughs> bu dee nii la ñuy tuddee nañ yóbbu gars yi école formation jot na palaati laax la taaj palaati laax la taaj laax nee ma ñu pare mu yëkkati keneen jox ñu ñu yaakaar ni fa lay yem mu taajal ñu booli ginaar ñu yaakaar ni fa lay yem mu woo gars yi di lakk yëf yi ni leen dibi dugal waañ ba xool ñoo ca waañ ba di toog man nee naa ko boo ma nar a joxe leneen yóbbu ma ca teere ma dawa ko gën a yomb waa mbokk yi moo ngoog fa tabaarakalla yéen ko seen noonu mooy li nga xam ni euh, mooy bisu euh, Cheikh Saw bi Gaynde Fuuta euh, fii ci Kaolack Medina Baye yaa ngi dégg jumaay jumaay Baye Niass alxuraan joojee waaye ñu tombeek ñu nekk ci añi nag di ko wàccaay ah, ah, dafa mel ni fonk nañ dayya nag maa ngi seen ñu ore ay orne lu jëm ci orne orne yaakaar naa orne lañuy wax waaw orne lañuy wax orne nag dañ koy defal nday loo xam ni dëgg-dëgg kam kam def ca kër ga wala kam indi ca kër ga jar na ko dama ni fii ku fi sey sey yu baax bu ñu yóbbul say nday teraanga danañ ko defar ba ñëpp yëg ni baax na waaye am na nooy demee nak am na noo fi ñëwee di xuloo ak dañuy gàddu bool ba gën a tirim ca bool ba rek gàddu lok waaye bool bi koo gis xam ne sunu jabar jeeg la bool bi koo gis xam ne sunu soxna ah muñ kat la bool bi koo gis xam ne sunu soxna fonk nañ njaab waaye ndeyam fonk nañu nag fa tabaarakallaa lii lépp seex seex seex sawo ko woote gaynde fuuta ah sëtu caareen bi sëtu Medina bi sëtu Seero nee naa dëkk yi la euh, fa fa fa nga am pénc yaatu na ci réew mi cey saa waaj gaynde Fuuta ku ko mën a wuyoo ñaari weer ay at amoo gàllankoor bañu ñu tur wi jéppiwuñu la talay sa nga xam ni waa Fuuta nga woote gaynde Fuuta waaliyu gépp nangul ni yaay gaynde gi seedo nangul la ni yaay gaynde gi caareen nangul ni yaay gaynde gi dañtaari nangu la nu yaay gaynde gi liw nangu la nu yaay gaynde gi pade nangu la nu yaay gaynde gi seex yaay gaynde gi borom piccum bu yaatu am nga cër seedo am yaakaara abul faydi am nga fi cër cey saa waaji cey saa waaji nee naa Dakar sa jikko lañ la jàppee sag fulla sag bëgg lu bokk eey seex yaa dis gor yaay jàmbaar yaay wàlliw yow nee naa la bi gaay di wooye jàmbaar dëgg nañ la jàq alaaji seex yow boo wootee boo wootee boo wootee ñëpp wuy si la asalaamaaleykum lañ lay loolu dong lañ lay dee asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu di la siyaar cey saa waaj saa waa jaa ngi saa waa jaa ngi lib sàcc saa waa jaa ngi kii woote na raf naa gis naa waa kii woote na raf naa gis naa waa ji ma maxtaar ca caare jarbaati ma Moustapha Gueye ca Dakar tey saa waa yow maa moom wàlliw la mbokk moom mbokk moom makkan alxuraan cey saa waa yaa doon alxuraan yaa bëgg alxuraan yaa fonga alxuraan léegi la réew neex ba ku mani bi papier di jar ñaar dërëm big di jar fukk juróom la gaa yi bind déggoo ma de bi papier la papier bi muy jar ñaar dërëm di jar fukk ak la gaa yi mën a bind waaye ba bind di jafe mokkal di jafe lañ la mokkalandoo lañ la jàngal lañ la defar ay Seex Tijaan cey Seex Tijaan saa waajaango man daal saa waajaangi salaamaaleykum dama doon nuyoo de moom ndi ne la doon nuyoo jërë ngeen jëf mbokki xarit di Africa Presse 24 euh, mu mel ni din di ñëw nañ fi nga xamante ni mooy set seet si ndaanaan bi nga xamante ni yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté ini euh, mu mel ni mau mbokku Sénégal muy borom Fuuta muy gaynde Fuuta ñu ngi ko fekk fii nag ci Kaolack mu amoon gan war ko jox tur tey ñu ñëwoon fii nag fekk ko ànd si ak moom ci loolu ñuy dañ koy mu kilifa gi ba pare ñu rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا حمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت حليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واقلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غناو بن سانتي يالله جولي تي يونت تيد بي صلى الله عليه وسلم نيغي سانت سن وسيله سن مام مولانا شيخ الاسلام الحاج ابراهيم نيس واي دي سانت تيميت بنن يون سن وسيله تي طريقه تيجان سن مام دي شيخ الامر فوتي تال nga xamne jokk branche mu ci Cheikh Alxaaji Baye Jatara muy nijaay ci ki nga xam ne mooy sama baay di ci ki nga xam ne mooy imaam Alxaaji Moustapha Guèye mi nga xam ne ñu ngi koy jooy ba léegi noppeeguñ di bala maa def dara lépp loo xam ne rek man dama koy def dama koy sante sama waajur wu góor nga xam ne moom la ñuy wax Mawlaaya Cheikh Mokhtar Sow al nga xam ne tey lépp luñ xam wala lépp loo xam ne ñu ngi koy taataan ci mbaax di wala di ko ci xam wala di ko ci def lépp ci buntam la ndax ci ndigalam ci la ñuy aw ci ay tareem ci la ñuy bàyyi di ko uttandiku waaye it tey dama ameel cant koo xam ne tey dafa bokk ak sama yaay ndey ak bàyyi di sama lépp muy mawlaaya cheikh sidi mouhamadul habib ahmad ibrahim ñas tey ci këram ngeen ma fekk fii ci kawlax moom ak sama yaay ñu bokk ndey ak baay tey jii bu ma leen gisee ngeen jógee dakaar ba fii ànd ak Africa Press 24 ndoo mële nga xam ne eh, xarit la wala sax doomu ndey la ci Balla Gaye eh, buur mi ak yéen ñépp maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay ndax dëkk yi ngeen jógee sori na lool ngeen bàyyeekoo fa ñëw ba fii di ànd ak man ci tur bi nga xam ne moom laa doon joxe ci gan gi nga xam ne moom lañu yàlla dénk muy xale bi nga xam ne judd na tey ñu tuddee ko suñu waajur wu jigéen Seyda Roqeya binti Cheikh Ahmed Dame Ibrahim Niass nga xam ne ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér mu am taar am xam-xam am alquran ndax bàyyi ci bopam dafa waxoon ne sama dëkk bi ñaanuma fi len lu dut alquran nek sama karama ne fa tajalan fi kitabik alkarim karamati ila liqaayikal alazim mune ma ngi ñaan alquran nek sama karama tay nak ci buntu lolu ñu ngi ciy jaar di sante yàlla di ndokel këri diine yeb këri diine yeb buñ ko déggee ñi ngi ndokel Mawlaaya Cheikh mohammedul Mahi nga xam ne mi ngi jógee ci Darfour ci sudan ci Mali fu ne mu fay dem di indi jàmm ci diggante réew ak réew bërki démb gis ngeen gàmm gi mu def ci nigeria waaye di ndokkeel tamit Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir nga xam ne bërki démb moo njaay gis ngeen milliards yi mu génnee mënoon na koo jël def ci poosam mënoon na koo jël ne amee naa njaboot waaye déedéet daf koo jël ne dama koy def ci ñi nga xam ne dañoo xelloo xam-xam ñi nga xam ne dañoo axtaajoo xam-xam ñi nga xam ne dañoo soxla xam-xam te genn wàll xam-xam nag eh, mooy xawma te xawma nisful ilm laa adri genn wàll xam-xam mooy xawma xawma nag boo ko déggee mooy boo gisee Cheikh Mouhamadul Muntaxa samp kuréel gu mel noonu wala samp bërëb bu mel noonu mooy def na dem leen ngeen jàngi tey da ngay gis ci bërëb bi nga xam ne dañ ciy yëngatu ci milieu yi nga xam ne ñu ngi ciy dox tey ñun bu fekkoon ne mbooloo kese mooy tax ñuy génn ci internet konoon duñ génn ndax mbooloo ku ne xam na ne am na ndax ku dëkk ci dëkk bu mel ni Fuuta eh, mbooloo ne sa gannaaw jumaa ji ne sa gannaaw dëgg-dëgg kooku soxlawoo mbooloo waaye dafa am ay mariirandoo yoo xam ne léegi dafa xew ci jamono ji nekk ci internet bi ku ne naan man la ku ne naan maa xam ku ne naan maa mën te dëgg-dëgg yàlla rek mooy buur bi nga xam ne moom mën kàttan moom rek moo ko yeew waaye dëgg-dëgg lopp loo xam ne doon noo ko jàngoo ko xamoo ko soo waxee ne mën nga ko war naa jaaxal ñu bari waaye may profito di lancer message ñi nga xam ne ñooy waa bitim réew fii nga xam ne maa ngi wax ak yéen maa ngi jot ay appel yu nekk ci bitim réew fu nekk ci àdduna bi ñi ànd ak man ci bés bii nga xam ne moom la ma yàlla dénk tey ma am ci mbégte lool am ci kontaan rawatina nag gis ñëpp bàyyi ko fu nekk ñëw loolu dëgg-dëgg mbégte la ci man waaye loolu daf may gën a xirtal ci mbaax waaye loolu daf may gën a xirtal ci may defal jaamu yàlla yi lu wér ndax nit koo xam ne jëflante woo moom lu wér dootoo ko gisaat nit koo jëflante wut ak teraanga tamit doo ko gisaat nit koo jëflante wut ak tamit ci jëflante gor ak gor ko gisaat man lool rek laa amoon ci kàddu yi nga xam ne danaa ko ci sànni tey di sant àdduna bi yëpp di sant ñëpp ndax fuñ ne ñaan rek ñu ne Serigne Sow fuñ ne fuñ xalaatee ñaan yàlla rek ñu ne man fuñ xalaatee lu baax lépp lu ñuy def ci ñaan yàlla rek ñu xalaat ma ci looloo tax lépp loo xam ne dama ko doon def benn rek dama ko yokk yóbbu ko ba ci junne wala sax ba fi nga xam ne fa la mbir yi mën a em ndax dëgg-dëgg awma seen fay ndax ki lay wax naan la yow la kooku am na lu mu gis ci yow ba tax mu ne la yow la waaye yow war ngaa góorgóorlu ba sàmm loolu ba bul ko wan beneen tànk yoo xam ne tànk bu kii ndax rafetut nit ñëw jox la boppam jox la alalam dénk la boppam dëgg-dëgg kooku bu la ooyee war na laa jot bu la seetee war na laa gis waaye bu lay xeññeeku yi war na laa xeeñ loolu nag lañ amoon ci ay kàddu yoo xam ne ñu ngi ko ci sànni di ñaanal seen site bii nga xam ne dëgg-dëgg man xam naa ne site bu kawe la te xam naa ne tamit ci fu gën a kawe jëm loolu man xam naa ko te ñun man lépp lu ma téye mu dem te danaa ko téye te danaa ko téyel sama bopp te di ci génn ñëpp di ku may namm di ma ci seet incha allah rabbi lu ma jàpp mu dem ta jàpp naa ko incha allah Africa Press 24 incha allah ñëpp danañ ko dégg bu soobee yàlla jërë ngeen sëriñ bi lii nga wax dees koy gëm man boo ko waxee doo ko gëm man mi la fekk say biiri mbokk fu ne ñëw naa kal wax jaar naa fuuta ànd ak yow fi sa maam nekk yëpp waaye ñaan danga koo doon nee nit dana yooyoo ñaan te du mën ñaan yow da ngaa yeeyoo ñaan ndax say maam ñëpp des leen di tàllal loxo dañ leen di raamal ñaan sa yëfa